baax yéen suñuy mbokk internet yi di leen nuyu dem contentement dialogue yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy ma ànd ak sama naataango yi rek di ñëw di leen indil li gën a fës ci xibaar laamu ci noonu nag dama leen di nuyu rek daal di àndandoo jukki leen li gën a fës mbay nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke ñun tamit suñu mbégte mooy jàkkaarloo ak yow saa su ne. ngir fas yéene jukkil suñu mbokk yi ni nga xamante ne bii moo gën a fës ci yéenekaay yi nga xamante ne bii ci làmb la ñuy bind nuyu bu baax tamit suñu mbokk internet yi nga xamante ne bii saa su ne ñu ñuy topp as di nuyu Assane Walu di nuyu Thialis mi nga xamante ne bii moom mooy suñu PDG di ko ñaanal jàmm ak salaam Assane Walu nuyu naa la ne Mbacke fay naa la di fay Baye Babacar di nuyu internet yu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaar ak ñoom pour indil leen di gën a fës ci yéenekaay yu làmb ci mardi 27 avril 2021 ci Leewtoo point net la ñuy doore ak xibaaru làmb la mu xëyee nag mooy Mame Gorgui Ndiaye l'enfant chéri de Dakar lam ca xam ne nag mooy l'homme au centenaire l'homme au cent victoire Baye Babacar ay ca ma nga noona Mame Gorgui Ndiaye bàyyi jatu Ndiaye moo doon naan sañ-sañ nga may jiin man may bëree daan am cëgin dafa yombul waaye kon ma dim segin ndax li ma fi def bari na li ma fi def nag moo nekk nii bëri na li nga xamante ne bii mooy 149 combats am ci 101 victoire am ci li nga xamante ne bii moom mooy deux défaites maam góor gi Njaay kenn du moom am cëgin dafa yombul waaye kon mu dim cëgin dëgg la Mbaye Babacar comme li nga ko waxee maam góor góor gi Njaay mi nga xam ne ni Leewtoo point net dafa demoon seeti ko euh, si semaine bi passé ñu dem nag ñoom am waxtaan wu bëree te neex ñu wax leen ne deuxième partie bi di ngeen ko am di ngeen ko dugalaat ngeen gën ko seetaan wax na ci digganteem ak Modou Lo di ngeen découvrir li mu wax ci Modou Lo lépp waaye ñu ñu revenir ci carrière am maam góor gi Njaay mi ngi débuté carrière am en 1956 ngi arrêté en 1983 premier grand combat ngi ko amee woon ci digganteem ak euh, Jibi Njaay mu daane ko en 1964 dernier combat am mi ngi ko def contre Balla Gaye numéro 1 1983 nee na boobu la dem mag après mu bàyyi complètement làmb nee na nag moom mooy borom euh, victoire ci ñaari booy nee na dafa daan booy bi daane booy pambal dimanche ba la weesu donc ñaari dimanche mu daane ci ñaari booy moom nag comme ni ko mbay mbay waxee am na 149 combats 101 victoire 26 euh, match vingt deux défaites en vingt sept ans de carrière kenn du moom maam Gorgui Ndiaye xale yi xale yi war nañoo roy ci moom ndax ndax ndax moom nee na da doon bëre da doon bëre da doon bëre ñaari yoon ci li nga xamante ni bii mooy semaine bi wala su bëree dimanche bi dimanche ba ci topp day bëre waat mooy borom ñaari dimanche borom ñaari dimanche eh, ñaari booy <laughs> yàlla na yàlla guddal fanam amiin suñu papa jooju ca noonu nag Leewtoo point ba léegi desen na xibaar yi lam ca xam ne nag mooy rencontre du ministre Matar Ba ak nga xam te ne cet après midi ca loko ya lañ ciy waxtaan nag dina nekk ponk yu bari Mbaye Babacar loolu war am tey jii incha allah bu ci yàlla àndee fële ca arène nationale CNG moo war a ak bailleurs yi bailleurs yi nag bu buñ ko waxee mooy ñuy jël seen xaalis di ko dugal si làmb di fay mbër yi ñooñu ñooy promoteurs yi incha allah Assane loolu tey lay doon bu bu bu 13h jotee. dëgg la Mbaye Babacar ñu fàttali ne ministère des sports muy Matar Ba moom mooy janoog ak promoteurs yi fu muy amee foofu ci locaux ministère des sport lan koy amalee bu 13h jotee. li ñu fa war a waxtaanee nag xam nga mbay Mbaye Babacar vingt 26 décembre euh, passé Matar Ba dafa demoon benn conférence de ne ubbi na làmb ji mais en huis lay dem ñiy dem promoteur yu tëgg combat da leen di apporter benn soutien financier loolu nag la promoteur yi bëgg a dem xam naa tey fàttalil ko ko pour mu mën leen gën a jàppale waaye également dinañ fa wax ci affaire caution yi nga xam ne ni euh, CNG bi exigé na ko promoteur yi samedi bi passé daf ne désormais pour nga am date di nga jox benn caution de 1 million te loolu promoteur yi d'accordul ci certainement tey den ko discuter ci seen réunion boobu kon au lieu de arène nationale mais ministère la réunion bi di amee. dëgg la ministère lay amee à partir de 13h. jar na leeral. diggee bor la moo leen ko digoon da ngeenee di fësal ko rek waxaale la li nga xam te ne mooy leen métti ci caution CNG ba te noonu la ñuy dikkee ak suñu lam ba mu xëyee ci xëtam bu njëkk Eumeu Sène Balla Gaye numéro de une troisième revanche ki tombe à pic mu mel nii ba Eumeu Sène ne pare na pour janoowaat ki nga xam te ne mooy doomu Guédiawaye Mbaye Babacar mel ni combat boobu ñor na xomm yaakaar naa euh, euh, ki nga xamante ne bii mooy Eumeu moo ko xawoon na yàggal moom mi ne woon dootul bëre ak Balla gay mais léegi joxe na kàddoom nee na nangu na bëre waat ak ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye suñu làmb tey bind ne combat boobu fi mu toll nii jot na dëgg la Mbaye Babacar journal suñu lamb moo waxee noonu nee na troisième revanche bi euh, jot na ndax ñoom ñaar jot nañoo daje ñaari yoon Eumeu Sène daane na ko le 8 février 2009 daane waat ko le 8 euh, le 5 avril 2015 mais bi mu ko daanee dernièrement le 5 avril 2015 Eumeu Sène daf ne woon dootul daje ak Balla Gaye mais jamono yi passé dañ ko gis mu revenir ci kàddu yooyu nee na maintenant pare na pour jëflante ak Balla Gaye looloo tax daal journal suñu laa mu ne troisième revanche bi ñaari mbër yi jot na nag ndax ñoom ñaar à chaque fois bu ñu dajee day neex. Uh-huh. bu ñu tasee day neex ba tax nag wax waxeet. fii lañ ko yàgg a fekk ah, Eumeu Sène borom wax waxeet boo për ak Balla Gaye dina neex dina yëngu ca noonu nag ci Modou Lo Ama Baldé lañ jëm chacun ayant dans le fief de l'autre kii su gis journal suñu làmb la mu xëy di sampalaat nag mooy ñoom ñaar ci ñaari mbër yooyu kan mooy metre li nga xam te ne mooy quatrième panier bi ci kaaw keneen ki Mbaye Babacar muy laaj bu am solo ba nga xamante ne bii loolu yaakaar naa insha allah arène nationale rek lay leere ñoom ñaar bu ñu jàkkaarloo suñu làmb tey dafa xëy bind ne Modou Lo ak Ama Balde ku ci nekk dugg nga sa koñu morom maanaam fa sa morom dëkk di fa takk ngemb di fa ngemboo di fa di fa waree di dem stade ku ci nekk dugg nga sa koñu morom daan fa ñetti mbër asan ñetti mbër yooyu ñan lan ku ci nekk euh, bi nga duggee sa koñu morom kan nga fa daan. dëgg la Mbaye Babacar Eumeu Sène la euh, Modou Lo dem fekk Pikine daan ko ñaari yoon mu nekk le 28 juillet 2018 ak le 31 janvier 2014 ah. ginnaaw ñaari victoire yooyu ci Eumeu Sène Modou Lo également daanee na beneen mbiru. mbëru Pikine muy Laay Bey loolu mi ngi xewoon le 3 décembre 2006 donc ñetti combat yi la fa am ñetti yooyu daf ko am ndam Ama Baldé également def la même chose dem na parcelle am fa ñetti victoire ndax daane na Baypal le 4 juillet 2009 daane na Jos le 4 avril 2015 daan na également Papa Sow le 17 février 2018 donc ñett ñett la ñoom ñaar nag journal suñu làmb nee ne kan moo ci am quatrième victoire ci camp euh, moromam ca noonu nag ca Moget lañ jëm borom Moget Events a encore frappé mais maintenant for lam teg nag ginnaaw combat Lirou Diane ak nga xam te ne mooy wuli wuli waat daa ñëw daal di ci teg en for ki nga xam te ne nii mooy Baye Mandione ak Zarko Baye Babacar. ma Mandione Zarko Moget moo taxawal boobu le combat borom États-Unis d'Amérique borom na lamp yi tàkk. le jeune milliardaire moo taxawal boobu les combat euh, mu mel ni moom tamit dafa dugg fi mu toll nii ci làmb ji gannaaw boo mu taxawalee démb ay combat tey mu taxawalaat yeneen combat mu naroon dox ci Baye Mandione ak Zarko di ñaar ña nga xamante ne bii xaw nañ leen a gëj a gis tuuti. dëgg la Mbaye Babacar mën na ne moo gën instant yi moom tax na rëpp ci làmb ji ndax démb lan fi annoncé combat yi mu taxawal combat yi mu taxawaloon mooy diggante Jordan ak euh, doomu Dangu Cobra ak Baara Ndiaye Tonnerre ak Mobile 2 Alaaji Mbay ak Boucher Liiru Jaan ak Wuli tey ñu informé ne moo la moo na également sixième combat am bi nag mi war a dox di diggante Baye Mandione ak Zarko ñu fàttali ne va Zarko bi mu gëjee ci làmb ji 2012 la woon Modou Anta moo ko mujj daane le 12 mars 2017 depuis lors mi ngi États-Unis di préparé wu Mbaye Mandione également dernier combat bi dafa àggul woon le décembre la ko doon def foofu ci Gambie moom ak xoyantaan mais euh, combat bi mujjul woon àgg ndax dafa amoon ay coow. Uh-huh. ca noonu nag lu simple lañ jëm deux victoires en deux victoires autant pour moi en jeu. Uh-huh. li nga xam te ne mooy 1 million 500 à Mbour fee ne le 16 mai incha allah teg ci 4 millions à mu mel ni bu ñu corté par rek làmb lutte simple dina yëngul Mbaye Babacar. waaw ay mi ngi noonu bëre simple bi yàgg naa wane boppam ndax ba làmb ji ubbee ba léegi gis nañ ne bëre simple yi moom moo ëpp journée yi nga xamante ne bii moom mooy euh, bëre dóor yi euh, ñu magandoo na nag ñu teg ñaari oto foofa ca gànge sërif incha allah bu ci yàlla àndee loolu le quinze mai lay doon bu ci yàlla àndee bu ñu fa jógee la le 4 4 4 million maanaam ñeenti million la ñu teg entre la 14 ak le 15 mai foofu ca Joal Fadiouth nar a nekk journée ba nga xamante ne bii bu neex lay doon ba léegi ci bëre simple tamit bu ñu foofa destination Mbour géej la foofa nag nga fa teg Assane un million cinq cent journée yooyu kan moo ko tëgg dëgg la Mbaye Babacar bu ñu koree ba pare lutte simple dina jax ndax ñetti galaa gi nii ñu prévoir ko euh, ci ginnaaw korité bi ndax euh, galaa war nañ ko prévoir à Gagé Serif le mais mai euh, Gagé Serif nag benn village la bu nekk ci côté Djilor ñu koy tëgg galaa boobu mooy cheikh yi di Assane ak Ousseynou Diombi ñoom ñoo fay mu mise ñaari oto ak benn somme deux cent vingt mille gala boobu kii di Mbaye Loum ak Morgom ñoo koy tëgg bu ñu fa jógee ñu dem foofu ci mbuur mbuur nag Pape Malang si Sagna moom moo fay musée somme un million cinq cent moom baa bu fay ak Mbayang lum ñoo koy tëggal après euh, Joal après mbur ñu dem Joal mbur bi la 15 mai la Joal euh, mu war a am 14 ak quinze mais euh, kooku Mamadou juuf moo fay misé 4 millions Ndeye Fatou Adama Jëli ak Jab Diagne ñoom ñooy animé gala boobu. mu nekk ay journée ya nga xam ne journée yu nar a neex la ci bëri simple. ay journée yu bëri neex yu nar a neex la mise yi ngandee nan donc mm. après Korité le simple li simple dina jax. moo ngi doon nag ginnaaw ba mu daanee Cheikh Super Jamono barki démb Dia ci arène nationale capitaine dina amaan na beneen combat diggante mag ki nga xam ne mooy Sa Ndeye Rap ku ko taxawal nag mooy Xaadim Samb bay baaw suñu papa Xaadim Samb di communicateur traditionnel bu mag moo taxawal boobule komba capitaine Dina ba mu bëree ba noppi dafa amaat beneen combat war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sanderep Assane Sanderep di mbër ma nga xamante ne bii mbër mu coriace la mbër mu dëgër këcc la. dëgg la Mbaye Babacar Sanderep mbër mu naxadee bëree la mais ñu dox ci Xaalim Samb moom it euh, temps yi loxoom dafa tàng ah. ndax bu yàggu rek la fi tegoon euh, combat ñaxi jariñu ak kéwal mu jege fa tey taxawal euh, combat bi di euh, war a dox ci diggante capitaine Dina ak Sanderem Sanderem euh, nag ni nga ko waxee mbër mu naqadee bëral la de dernier combat am ngi daane woon pap booy Pambal loolu le 9 février 2020 la amoon capitaine Dina moom ba mu gëjee ci làmb ji ay semaine rek la ndax la 11 avril passé la daane super jamono ca noonu nag attaque sévère de Pape Diouf Fall moom mi jiite kuréel bi ëmb li nga xam te ne mooy promoteur yi ginnaaw ba mu attaqué kii di CNG barki de moo Ndiaye ginnaaw ba mu meree ba futtu ndax caution yéen teg arrangé ko dëppoo ak liñ bëgg. Mhm. fin de l' état de grâce pour le CNG bu mel ni gana la nga jeex na Mbaye Babacar sagara ngi bëgg a mel ni gana la na gannaaw ba CNG defee ñetti weer. mooy état de état de grâce boobu nga wax noonu euh, mooy ñetti weer yi nga xamante ne bii jot nañ koo def fi mu toll nii nag. Pape Abdou Fall xamal na leen ne ganale gi jeex na gannaaw ba mu leen tàkkalee démb tàkkale bu metti ci condition yi mu tegal yi ñu tegal promoteurs yi te promoteurs yi ànduñu ci asam dëgg la Mbaye Babacar CNG bi ñu ko tegee ba léegi bi ñu ko installé ba léegi mën na dox ci 6 mois maintenant ndax 5 euh, novembre la leen installe woon euh, attaque bi euh, Pape Abdou Fall def démb nag looloo tax journal suñu lamb bu dikki ne est-ce que du état de grâce bi dafa jeex ndax démb Pape Abdou Fall dafa génn que seen mission jaawalewul nag li ñuy def nii est que bokk na loolu tax daal journal suñu làmb dikk ne tey est-ce que du état de grâce bi nga xam ne nii euh, CNG amoon na ko est-ce que du moo jeex maintenant moo tax attaques yi di commencé di ñëwee fu nekk. gërële <laughs> gaa jeex mbay waaw. waaw mi ngi noonu gërële gaa jeex su ko defee rek ñu ñu man li may wax chaque jour rek nañu jéem a waxtaan ndax seen jubo mooy avantage su làmb. Mhm. daal di déggoo ut ut li nga xam te ne mooy terrain d'entente ca noonu nag ca mbër bu ordinateur lañ jëm ordinateur à ses supporters mu leen di jox rendez après Korité incha allah dina ñëw daal di fësal boppam Mbaye Babacar gannaaw bañ ko gëjee gis ci làmbu simple yi ordinateur di mbër ma nga xam ne euh, ñi ñi topp làmbu simple te bëgg làmbu simple xam nañ ko te dañ koy bàyyi xel lu bëree bëri ndax fullaam ak faydaam ak mën a bëreem macha allah ba làmb ji ubbeeg léegi nag dañ koo gisul looloo tax tey suñu làmb sekk ak moom waxtaan mu ne mi ngi jox euh, fans yi rendez-vous bu ñu koree ba pare incha allah incha allah dana tooylaat ngembali dugg ci làmb ji. dëgg la Mbaye Babacar xam nga li simple. Euh, commencé na bu yàgg ay gala yu bëri am na fi mais ordinateur gisuñ ko looloo tax nag journal suñu lamb bu dem seeti ko xool ko fu mu nekk moom nag li wax nee ne mu ngi ci village am bi tudd Ngaan nee ne foofu la nekk di entraîné nee na dafa toog un an amul compétition donc balaa ñëwaat ci compétition dina xaar ba pare physiquement moralement mystiquement doog a revenir ci lamb ji looloo tax nag mu leen di jox rendez-vous après Korité nee na d'ici boobu boobu dina pare physiquement ba mën a retourner euh, ci compétition yi comme ni mu ko tàmm di defee ca doon nag ca tafaatin la ñuy jeexalee xibaaru làmb ak ca rubrique bi ñu ko invité rubrique di Leewtoo avec ñu invité ki nga xam ne ne mooy tafaatin le géant du Baol lam ca xam ne nag mooy ko gën a marqué ci combat ci carrière am yépp mm-hmm. mooy ba muy janoo ki nga xam te ne mooy doomu géej gi di B52 de Mbour su ba mu ko jàppee daal di koy dóor ba aaroon nangu ko ci loxoom Mbaye Babacar waaw ah, wallaay noonu la demee de tafaatin ndekoroog dóor na fu nekk Bombardier ma nga noonu dóor na ko ba muy sël moo deret ndeysaan mu nekkoon combat ba nga xamante ne bii combat la bu metti woon ci Bombardier Tapha Tine ba ñu ko laajee combat yi la gën a marqué nee na combat boobu bokk na ci yi ko gën a marqué. dëgg la Mbaye Babacar ci rubrique bu Leewtoo bu suñu làmb lañ ko invité tey la foofu la yëkkatee kàddu yooyu nee ne combat bu ko gën a marqué mooy combat bi doxoon ci diggante moom ak Bombardier combat bi ni ko Ndeye Mbacke rappelé combat bu naxari woon la ci moom Bombardier ndax deret ji bari woon na mais nee na également lutteurs yi préféré am ñi yi nga xam ne nii ñoom la gën a bëgg ci làmb ji nee na Yékini la ak Tapha Guèye nee na ñoom ñoo ko gën a marqué te ñoom ñaar la doon suivre à chaque fois nee na également sport favori bu mu gën a bëgg di def moom looloo loxo yu baax. dóore rek la bëgg kii ji xol bi la ko def. ayca mu ne lu mu dul fàtte rek mooy téléphone portable am da ko bàyyi fenn. mu ngi noonu nag leen jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci ponk xibaaru làmb may la tàggatoo li ñuy tàggatoo tey xanaa di souhaiter rek Mansour Mansour Fall. le benjamin des man xam ngeen ne tey mooy anniversaire am. te euh, olof Njaay dafa ne bis du tuuti borom lay tollool te koo xeebal bisam nag mu xeeb la Mansour sa bis bi xeebuñu ko macha allah ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire longue vie santé prospérité et tous les bonheurs du monde naan la dundal dundal dundal ba say may di baawaan dundal ba say wayjur fekkee sa njëriñ dundal ba yóbbu sa papa ak sa yaay màkka fal njaga yaaram loo dund doy. ñaaw naa koy ñu ngi remercier ñu remercier Mbaye Babacar di remercier internet Leewtoo TV di remercier Yacine Fall waa Linguère également mais également di souhaiter Mansour euh, joyeux anniversaire nga fête koy ne yu bëri bëri li nga yootu sa àdduna yëpp nga jot ko euh, li nga bëgg sa xol yàlla defal la ko di leen jox di daje suba ak jàmm incha allah. mooy nag borom bés bi la di Mansour Fall ah. Fall Ndiaga Yaram nee naa la dundal li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal doomu ñay dañ koy naan dañ ko ñaanal rëy ah, dañ koy ñaanal gudd fan bu guddee fan am lépp borom xol bu rafet bi nee naa leen buñ toogee fi di wax ba mu yëmb rek ngeen koy gis ci loxoom la jaar Mansour xale bu baax la yaru na tey na moo fi nekk luñ ko wax mu nangu di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko li mu bëgg sutura àdduna ak àllaaxira ci noonu nag damay daal tàggatoo gi yéen rek jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV